mbokk yi bi ñu leen nuyuwaatee ziarat leen baax a baax rek incha allah rabbi kon ñu ngi ak ci guddik fukkeel ga incha allah sëriñ Souhaïbou nee na ku ci julli maanaam ñeenti rakka rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak ayatul kursiyu <coughs> te moo allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayum ba mu jeex benn yoon ak inna ansalnaahu fukki yoon ak ñaar inna anzalnaahu fii laylatil xadr fukki yoon ak ñaar bala moo jógee fa mu ko doon fa mu ko doon jullee dees na ko jéggal bàkkaar mi njëkk ak yu mujj te dees na ko bindal itam maanaam dees na ko bindal itam tiyaabay juróom fukki nit ñu nangu seenu jàmm ak tiyaabay juróom ñaar fukki nit ñu dee ci jihaat des na ko bindal mbokk yi kenn ku ne xam na ne ñun ñëpp njëgalu yàlla lañu wër ndax àjjan lañu bëgg deej jihaat itam ku xam deej jihaat dara ji mu amee xam nga ne bëggoon nga ko ndax mooy ñi nga xam moom dañu leen suul noonu rek ajuwul sang ajuwul dara ndax ci laab ci ci ci jihaad lañu dee dañuy jël seen bakkan ak seen alal lépp jaay ko borom subhaanahu wa taala ñoom rek la suñu borom mos wax ni jëf leen leen neex lu ngeen defati neex na ma waaye tax na mënuñoo mooy suñu borom ñoom nag mooy ñi nga xam dañoo jëloon seen lépp jox ko borom sant jébbal ko ko kon képp koo xam ni julli ay rak mën naa tax nga bokk ñooñ suñu borom boole te fekkoo ko ak loolu na tare woon nga xam ni joxe bakkan moo ko doon may ak alal tuur sa deret tey nag ñu wax la ay rakkaay gàtt ne la boo ko dee suñu borom mën na la ko may kon nag mbokk yi loolu ëpp naa sàggane nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te moo di guddi fukkeel gi incha allah rabbi di leen jégg lu baax te leen tubal nag lu ci ñu xam ni borom subhanahu wa taala la lu ci dëngeen xam ne ki leen wax matut yàlla nañu borom defal ko rek jàmm barki seexul xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu